arbitre bi na combat Diassy Peulh bu Mor Holland moo ñu woon gannaaw ak Badara internet bu Mor Fafa ko combat soxla ci poids léger ñaari technicien ñaari xale yu mën a bëree Badara internet Diassy Peulh Mbeske ngaƴa sahlala fo suka njota te Espagne a njofa combader maaga yàlla jege ndam loor ndeysaan mbokk Modou Modou ñu leen di siyaar Badara internet